parce que li olof di wax ku la abal bët fu la neex neex ngay xool bu liir peccum liir bu neexee yaay yaay teg ci mbag yi kon Thiaye Fun nous disons merci à Thiaye Fun à travers la fédération Kajoor Janken qui joue sa partition dans le cadre du CDP qui est le point focal société civile merci monsieur le préfet Merci à tout un chacun. Merci même à ceux qui voulaient venir, mais pour des raisons techniques, pour des raisons sociales, pour des raisons professionnels n'ont pas pu nous accompagner. À mort du massacre d'enfants à Soweto en 1976 de l'apartheid, alors au en Afrique du Sud, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA, aujourd'hui Union africaine, a institué à travers la résolution CM-RES 1290 de juillet 1990, la journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année. Au-delà de cette commémoration, il s'agit pour les États africains préoccupés par le bien-être de leurs enfants et du devenir du continent de marquer un temps d'arrêt pour évaluer la mise en œuvre du respect des droits de l'enfant. C'est un moment pour les obstacles les contraintes et de réfléchir sur les stratégies et les solutions adéquates à dérouler pour un développement harmonieux des enfants. Ainsi, il s'agit de mobilisation des droits des enfants. Pour cette 31e édition de la GIA, le comité africain, africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a retenu pour thème 30 ans après l'adoption de la Sarthe, accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique propice aux enfants. La Fédération Kayot Janken, en partenariat avec tous les acteurs de la CDPE de Thiès, organise cette année encore à Thiès la journée de l'enfant africain en faisant focus sur l'éducation et l'état civil. Monsieur le préfet du département de Thiès, nous, enfants de la mem membres des conseils consultatifs des enfants et des jeunes, membres du comité d'enfants, membre des clubs d'enfants et de gouvernement scolaire, recommandons aux autorités de département de veiller à la protection et à l'autonomisation des enfants, mais surtout à l'égalité des chances. Veiller à la mise en place d'un environnement protecteur des enfants contre toute forme de violence où les droits des enfants seront largement respectés par les coutumes et les traditions. S'engager à respecter, protéger et réaliser les droits de l'enfant et mettre en place de solides cadres juridiques conformes aux normes géopolitiques, programmes internationaux et à les faire appliquer pour une meilleure protection des enfants. Veiller à l'amélioration de la qualité et des conditions d'apprentissage de tous les enfants, formels et informels. Engager la discussion entre les intervenants et faciliter un dialogue constructif sur les questions intéressantes, la protection des enfants en mettant en place un partenariat large fonds et diversifier où la protection des enfants serait une priorité pour les acteurs. Veiller à l'application du cadre législatif sénégalais conçu pour protéger les enfants contre la maltraitance, les violences et les pratiques humaines, inhumaines. Renforcer les capacités de protection des personnes, les familles, les agents sanitaires, les fonctionnaires de police, gendarmerie, les travaux sociaux. Veiller à l'exécution de l'agenda 2040. s'engager à la prépa préparation des enfants à la vie en société en renforçant leurs connaissances et leur participation pour qu'ils deviennent moins vulnérables. Appuyer les mécanismes communautaires de protection mis en place à être beaucoup plus profonds, plus fon fonctionnels pour assurer un environnement protecteur propice aux enfants. S'engager à avoir des lignes budgétaires enfants lors des vote de budget des collectivités locales. Lutter contre la non-déclaration des enfants à la naissance, lutter à ce que les salles de jeu respectent les normes et les lois édictées, ouvrir à Thiès un centre d'accueil polyvalent pour filles et garçons victimes, construire des daara modernes pour l'égalité des sens entre talibés et élèves, lutter contre les enfants conducteurs de Jakarta, surtout, contre, lutter contre les enfants conducteurs de charrettes à ordures, lutter contre toute forme d'exploitation des enfants, encourager davantage la participation des enfants dans les insistances de prise de décision pour une prise en compte de leurs opinions sur les aspects liés à la protection. Monsieur le préfet, préfet, connaissant votre engagement et votre détermination qui vous anime tous les jours pour la protection et le bien de l'enfant, nous sommes sûrs que vous serez pour porter ce message au plus haut niveau de la hiérarchie. Pour terminer, Monsieur le Préfet, recevez nos remerciements et nos considérations les plus distinguées. Je vais commencer par dire que vous nous avez un peu pris au dépourvu et que nous aurions souhaité vous accueillir d'une manière plus officielle avec la tenue la mieux indiquée. On m'a tout de même chargé de vous recevoir et de recueillir ces doléances à travers ce mémorandum. Un que j'ai bien écouté lors de la lecture euh, de la présidente ici présente à mes côtés. Je dirais même que c'est un condensé de toutes les questions qui ont été longtemps débattues dans le cadre du CDPE euh, au niveau du département. Et donc aujourd'hui, c'est le 16 juin et c'est très important de marquer Euh, ce jour, compte tenu du symbole, de l'histoire que la présidente a bien voulu rappeler tout à l'heure. Mais je dirais que tous les jours au niveau du département de Thiès est consacré à la question de l'enfant. J'en veux pour témoin le point focal du CDPE qui m'appelle quotidiennement pour des cas de violence d'enfants de, perdus, retrouvés à prendre en charge dans le cadre des missions du CDPE. Alors, c'est des assurances, des engagements que je voudrais prendre en présence des enfants parce qu'aujourd'hui, je dois le dire, euh, ça revêt un cachet très spécial parce que plusieurs réunions, plusieurs rencontres avec différents acteurs, avec toutes les institutions du département, à savoir le préfet, les sous-préfets, les, les, forces de défense et de sécurité, les chefs de service, ont été organisés. Mais c'est toujours important d'avoir cette interaction avec les enfants qui sont les principaux destinataires de tout ce qui se fait en matière de protection de l'enfant. Et donc, je voudrais le rassurer pour dire qu'ils ont des autorités au niveau du département qui entendent bien leurs cris, mais qui se soucient au maximum de leur bien-être et qui ne ménagent aucun effort dans ce sens. Et pour terminer, je dirais que nous avons entendu les doléances, notamment la création du centre d'accueil au niveau du département de Thiès. Et je dois même dire que nous avons quelque peu entrepris des démarches en collaboration avec le maire de la ville qui a un projet de construction d'un centre d'accueil appelé Kër Khalei. Et donc ce mémorandum euh, va être euh, pris au sérieux et transmis aux autorités à qui de droit et nous ferons le maximum pour suivre et pour que la voix de, des enfants de Thiès soit entendue au plus haut niveau. Je vous remercie et au passage nous remercions Kadior Dianken qui est un maillon essentiel dans ce travail-là qui est effectué niveau du département. merci beaucoup waaw comme ni ma tàmbalee rek day am solo ñu wax ni bëggoon nañ leen recevoir ci anam yi nga xam ne moom lañ ko gënoon bëggee si yu mel nii bu amee maanaam ngeen fekk ñu ñu yor tenu bi jàkkaarloog yéen ngir jox leen gëdd bi war préfet département tamit bëggoon na leen recevoir. mais muy xam ne ni dafa am ngànt mais mu yebal ma ci yéen ngir ma dalal leen saafoonteeg yéen waxtaan ak yéen euh, li ñu fi dajale nag tey mooy euh, journée de l'enfant di datu 16 juin bi ñuy wax ni date bu importante la bu jara fësal bu jara marqué la ndax li muy représenté ci àdduna bi ak li fi jot a xew ci histoire mais ñun dañuy wax rek ni diwaanu Thiès ñun chaque jour ci li ñuy dox mooy ci li jëm ci euh, euh, bien-être xale yi loolu su ma koy wax damay andi rek le fait que chaque jour ñuy jot ay kaaw violence yi nga xam ni xale yi ñu ngi koy subir ay kaaw xale yu réer seeni way jur ñu war leen a delloo seeni njaboot te loolu bu amee ñun dañuy taxaw temm def kéemtalaay kàttan ba jafe-jafe yooyu saafaraw donc loolu ñu ngi koy def ci benn cadre bu ñuy wax CDPE boo xam ne préfet moo ko créé ba pare jiite ko mais aussi si biir mu am maire de la ville ak yeneen maire yëpp am sous préfet yi ak chef de service yi nekk ci département bi yëpp pour wax rek te tey dalal xelu xale yi ni ñoom seen yitte suñu yitte la ndax responsabilité boobu si suñu kaw la dal ginnaaw ba ñu bëggee euh, doxal politique gu gouvernement du Sénégal ci wàllum xale yi ñun dañ leen di rassurer ni leen lépp li nga xam ni euh, nar na daal seen kaw wala nar na leen faagaagal ci seen màgg ci seen avenir ci seen njàng ñun waa CDPE bi te préfet département jiite ko da ciy taxaw xar ci tànk tubéyam ngir loolu mën a saafaraw mais tamit di wax ni mémorandum bi dégg nañ ko bu baax ndax maa ngi wax léegi ci kàllaama nasaraan ñi bi ma koy déglu daf may fàttali question yu bëri yi nga xam ni ñu ngi koy waxtaanee ci CDPE boobu loolu ñu mën ci lim euh, euh, tabaxu centre d'accueil bi nga xam ne bu ñu gisee xale boo xam ne dañ ko dañ ko xoo dañ ko xooñañal wala dafa réer ñu mën ko fa téye ab diir ba mën a am ci moom saafara loolu nag mën nañu am na ay jéego yu ñu ci dox jot nañ ci waxtaan ak maire ville bi ba moom aussi mu am si ay mbébét ba bëgg teg benn projet construction kër xale yi boo xam ni xale yi rek a koy moom donc mémorandum bi mémorandum bu ñu bu ñu jot la bu ñu fonk la mais aussi ñu leen di wax ni dinañ ko jéem a jottali ci autorités yi nga xam ne ñoo ko war a jot yëpp ba xale yi lépp lu ñu bëgg incha allah euh, institution yi nekk ci département bi mun ci taxaw